sama gars yi maa ngi leen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sant di leen wax ne voilà Cheikh Kana artiste musicien chanteur R&B hip hop j'habite depuis Guédiawaye tey damay laaj ci musique Sénégal fan la toll tey ñi nga xamante ni ñooy suñu grand frère muy Pape Diouf ak Wally tey jii bu ñu demee ba dégg si coow yoo xamante ne ñun population bi ñu comprendre loolu nekkul lu baax si seen carrière te nekkul li nga xamante ni dafay jëmale musique Sénégal ci kanam tey jii bu ñu bëggee quitter Sénégal ay fenn il ñu boole xol yi il faut que booloo mais bu fekkente ni dañuy xiiroo ak ngaayoo duñ mës a dem nañ boole xol yi muy Pape Diouf ak Wally ngeen joxante loxo kenn ku nekk mën a bâche moom ngeen continuer seen musique dafa am ñu nekk seen ginnaaw li nga xamante ni nag ñoo nekk si ginnaaw di yàq der nag ñeen Pape Diouf moo wax audio bi ñaan dañ kaa monté lillaahi nañ bàyyi loolu daf daf ñuy tàddal même bu fekkee ne nekkoon ay musiciens loolu la ñuy tàddal ñun population bi ngir yàlla nañ bàyyi loolu baaxul